léegi nga fekk koo xamante ni si benn du sa morom du sa moromu baay. du sa mhm. moromu yaay du sa moromu sax mag. Mhm. ibbi fi ay société ay nit di fi liggéey heure boo la neexee nga toog tacca taccal reetaan daal ni ku mënta fay say salaire ku mën a nangam sàggam. Mhm. te yow waxuma la moom rek moom mi nga xam ne moo ñu jiite mais ñun kenn ñun rek. lu ñu yàlla wërsëgalal rek. bu boo taxee ñu taxaw lu ñu yàlla wërsëgalal bokk sa sa wërsëg. donc loolu dafa war a arrêté. loolu dafa arrêté booy wax nga wax lala neex mais ñun waa D-Média nañu arrêté di ñu wax fayu ñun ñun ñu ngi ñuy fay chaque fin du mois. Mhm. ñu ngi jot suñu salaire ni ni mu waree. Mhm. musuñu toog bala diis te fayu ñun. beneen bi ci tege musuñu noo desal benn. déedéet beneen bi ci tege mooy bu yàggul bu yàggul allah la ñu yokkal suñuy salaire. dëgg na man bokk yokkal nañ ma sama salaire man mii. comprendre nga. donc benn nit koo xamante ni si benn fou malade. nga xam ne yow. kenkaay de sax ko yow amoo sax may mhm. fekk nit koo xam ne au moins créé na ay société di ci liggéey mais nañu respecté nit ñi tamit. parce que yéen i du buggaan la wax ne mais ñun la ñuy clash ñun ñu on est bien noonu laa ko mën a waxee ñun ñu ngi ci jàmm ñu ñu fay suñu salaire benn yàlla mi ñu ñuy suturaal ñu ngi ciy fay suñu location di ci fay suñu ndox di fay suñu suñu njàngi doom mm-hmm. bu yàlla dogalee suñu wërsëg yokk jënd nañ suñu oto yu baax dëgg la est-ce que comprendre dëgg la ñu ngi ñu ngi ñu ngi enjoy nañu arrêté naan ay waa D-Media nangam sangam bu ngeen amee seen problème ngeen lijjanti ko kañ la amul problème comprendre nga. man man man à chaque rek à chaque fois rek euh, ku mën ta fay say salaire ndànk yéen kii li mu yor ci salaire yéen da ngeen man man nag Cheikh. xam nga xam nga xam nga Sénégal quand dañ. Sénégal lu tax du dem. iñaan ak soxor ak bon ak yàqante. olof dafa am yu muy faral di wax. yow may nga sax amoo ko sax koñ di énervé nit ñi. foofu la dafa soof. <laughs> xam nga olof dafa am yu muy muy faral di wax. Euh, bokk na ci. rab nga yaakaaroon rab bi génneen nañ li ci léegi looy def léegi taxawaaru ci télé li arrêté leen waaye ñu ñuy fay nga xam nga wax wax bu dofee nopp ya koy déglu nopp ya koy déglu dafa war a wér. des médias ay ay ay ay responsable ñoo fi nekk ñoo fiy liggéeyee. dem maa ngi ciy waxtaan ak sama benn xarit mu may wax euh, sorti euh, Fou Malade boobu ma ne ko man de 2014 laa ñëw des médias 2014 ak léegi sama salaire mësta chaque weer ñi ngi may fay luñ ma war a jox ñi ngi ma koy jox bu yàggul dara la ñu yokkal euh, ci li ñu xam ñu bari seeni salaire fii ci biir kër gi. donc defe naa ni xam nga naka dañ leen olof dafay wax ku boot bukki xaj mbaw la président Bougane Gueye c'est un sénégalais boo xam ne ñun bi ñu bi mu yàggee dugal loxoom ci Sénégal euh, waxuñu nekkuñ fi pour défendre Bougane mais dañu fi nekk pour def pour wax ci patriote bi ak li nga xamante ni loolu lay dox ak noonu lay doxee. bi muy defar Sénégal ak di dugal loxoom ci askan wi booba gëm sa bopp judduwut mais patriote xale la boo xamante ni dafa bari jom lu Sénégal sumb moo ngi ci lu Sénégal sumb ci lu baax moo ngi ci lu waay nekkee ci lu baax danga ko cee fekk li def seen TV wala des médias en entier euh, yëfu askan wi mooy ku am soxla ci Sénégal rajo yi bari nañ télé yu bari nañ ku am soxla Sénégal sa xel fii la jëm si muy courant muy ordonnance muy lenn ak lu mu mënti doon chaque jour te loolu nekkul ñun lu ñuy wax lu sénégalais di teg seen bët la looy làmb daj ko la. chaque jour ñu wax xam nga Sénégal ne boo nekkee ci benn yëf di ci wax dafay mel ni la nga nekk moo tax euh, bu ñu amoon rek fukk ci Sénégal yu mel ni moom yor employé yi mu yor chaque weer mu fay la li nga wax léegi li nga lim léegi yëpp responsable yi ne ci biir kër gi loolu la ñuy def bu ñu fayee Cheikh Sarr day fay njàngu doomam. bu xëyee chaque jour day joxe dépense quotidienne am day faj ay soxla day faj soxla njabootam donc fii ay fowukaay nekkuñu fi yu fiy liggéey gratuitement. il faut nit ñi dañu war a arrêter loolu. non mais mais mais mais Cheikh dañu war loolu loo loolu ko Bougane loolu ñun ñu fi. xam nga ko. ñun ñun ça ñun ñun dañuy liggéey fii di xëy di gont amuñu fi dara. xam nga xam nga Cheikh Sarr miñ na fayu man man ma toog. yow koo xam ne yow ko xam ne euh, euh, booy attaqué booy attaqué nit ki booy attaqué Cheikh Sarr wala ngay attaqué Alima Ndione da ngay attaqué koo xam ni yow la muy def yaa ngi koy def mais koo xam ne la muy def ci réew mi yow sa baay defu ko la muy def ci réew mi sa ndey defu ko lu muy def ci réew mi sa mag defu ko yow may ga sax amoo ko may ga bu nit ñi ñu ne may ga bii kat may ga diw la nañ dem di fa reeree ji bu weer dee ñu def naa yow yow amoo loolu yow koo xam ni créé na ay emploi ay nit di ci liggéey. di fay ñeneen ñeneen ñeneen. dëgg la de yow salaire nga am. dëgg la de. yow fayoo kenn boo dee fay bon ngay fay sa biir kër. dëgg la de. arrêté leen seen yii nag. dëgg de respecté leen ñun waa D-Media ñun ay doomi aadama lañu. ñu ngi liggéey ñu ngi góor góorgóorlu suñu liggéey bii. yàlla ngi dimbali. suñu liggéey bii ñuy liggéey nii di xëy di wàcc yàlla nga ñu ci suturaal ñuy faj ñuy soxla këj ku ñu gis respecté ñu boo gaaree oto ñu gaaree oto bu gën a cher sa oto alima ñoon bu taxawee na fay ñu cher sa rek boo gaaree sa oto ñu gaaree oto bu gën a cher sa oto mhm. boo tukkee dëkk boo tukki ñu tukk fa hôtel boo dal ñu dal fa lu ñu ko may suñu liggéey dëgg la mais kon nañu respecté nit ñi dëgg la xoolal wax leen lu leen neex bugaan wax leen ko lu leen neex yéen a xam mais des médias ñun souffrir ñu ñu ngi ci jàmm. ak salaam ñun ñaata télé ñuy proposé pour ñu. yàgg na te bari na dama ne la ñaata organe de presse. yàgg na te bari na. ñaata kilifa ay organe de presse ñoo ñuy woo pour bëgg ñoo débouché. yu bari. pour yóbbu ñu seen i organe bëgg ñoo débouché dëgg la yu bari. est-ce que comme ñaata. bari ñaata ñaata ñaata nit ñuy woo ñaata nit ay kilifa yoo xam ne dañu am seeni i rajo ak seen i dañuy woo à chaque fois di toog ak ñun di waxtaan ak ñun di ñu bëgg a débouché jël ñu yóbbu ñu seeni télé. te buñ la wooyee dañ naan la tànnal salaire bu la neex nga ñëw. est sama bopp laa xam du benn yoon du ñaari yoon. yoo xamante ni si nit proposé na ma lu nekk. barki yonent yàlla moo xam. na ku ne fii. est na ku ne fii. mais da ngay xam ni benn yaa ngi fay am jàmm. Mhm. yaa ngi yaa ngi am jàmm. ak yaa ngi sa bopp ak ñi ngay liggéeyee mhm. beneen bi ci tege lañ lay fay même bu fekkente ni si euh, fukk la mhm. boo toogee fii bu ñu la ca tegalee juróom. Mhm. muy fukk ak juróom boo toogee fii balaa weer dee nga am ñaar fukk. Mhm. comprendre nga. Mhm. donc nit ku nekk ci suturaam nekk ci sagam nekk ci di suturlu yow heure boo toogee télé wala nga toog ci rajo rek que mën ta ay nangam sangam fii ku liggéey ñu fay la ku liggéeyul duñ la fay. ñun suñu waxtu bu jotee. suñu wërsëg jeex bi danañ dem wuti leneen. lu ko gën wala ñu am leneen lu tolloog moom. est-ce que comprendre bu baax il faut nit ñi xam loolu. bàyyi leen heure bu ngeen kii rek mel na ñun waa ñun waa D-Media daal suñuy liggéey amuñu kayit wéerewuñu fenn ñun dañu am sécurité xaw ma nu sociale xaw ma nu ñu koy waxee di mhm. dañu koy dañu koy dagg. ak IPRES IPRES dañu koy. Mhm. man maa ngi sama papier IPRES. man maa ngi sama poste man est-ce que comprendre nga bu baax. loolu ku loolu. wuyul wuyul wuyul ah wuyul. waa desk nettoyage nee nañ ñoom le 30 pur ñu fay leen seen xaalis. nan nit ñi arrêté waay. et puis et puis Sénégal Sénégal. Mhm. bu ñu bëggee Sénégal avancé. dañu raxas suñu xol yi. benn. nañu yéenante jàmm. dëgg la nañu nangul nit ki jëfam même bu fekkee ñu jëf. ak dayoo bi ko yàlla may. et xoolal même bu fekkee cër cër yàlla koy joxe. même bu fekkee jëf li ngistal la rafet na rafetal ko. Sénégal daal moom daal du ñu rafetal mukk lu rafet ñoom daal lu rafet la ñuy jël bëgg ko ñaawal dem na ba ci sax nag nit ñi dañu nit ñi daal mën daal man daal nit ñi daal bëgguñu gis nit di dund jàmm daal. nit koo xam ne policier la. Mhm. ñu raje ko fu muy liggéeyee. yow nit ki ñëw jël ko di ko liggéeyloo mu mën a am lu mu dundal. yóbbul njabootam yow loolu doo ko rafetlu. yow daal doo rafetlu loolu yow loo bëggoon ñu bàyyi policier bi mu gën a tumuranke te pourtant Sénégal am na ñu ko mën a récupérer policier bi daloon liggéey di góorgóorlu defal njabootam ah defal yaayam defal papaam am ñu wéeru woon ci moom ñu dàq ko buñ ko dàqee ci dëgg neel d'accord dàq nañ ko ci dëgg mhm. waaye yàlla na ko yàlla may leneen lu gën mhm. léegi yàlla may ko leneen lu gën yow nit ki yow nga ne yow doo yow daal yow daal waa ji warta am lu gën daal man yenn mbot gi yenn coxor yi yenn iñaan gi yenn xol yu xat yi yu ñuy doxee léegi buñ ko bàyyul barki yonent yàlla Muhammad dëkk bi dana gën a dana gën a lëndëm danañ gën a dund lu naqari. waaye waaye waaye xam nga loolu c'est pas c'est pas une première ah euh, wax nañ ko fi keroog c'est pas une première koo xamante ni am nga jafe-jafe ci sa liggéey. Ah, président Bougane Gueye jël la njëkkewul ci policier bi. dafa si policier bi xanaa policier bi. nañu am respect ci nit ñi. njëkkewul ci policier bi am respect ci doomi aadama yi. c'est vrai nañu yërëmante suñu biir. Mm-hmm. nañu jàppalante suñu biir. nañu nañu nañu nañu kenn ku ne na soutenir moromam ca nañ ko mënee. dëgg dëgg nit ki bu nekkee ci jafe-jafe ka ko soutenir wax ko jërëjëf gàcce ngaalaama. kookoo ko bëgg. jërëjëf. nit bu nekkee ci jafe-jafe. ka ko mm-hmm. soutenir. Ah, boo baaxee boo dee nit ku baax di gis lu baax. defal ko jërëjëf. Mm-hmm. mais nit ki soutenir ku ne ci jafe-jafe nga naan ko dang ci ngis talak mais mais yonent bi salaa nee na lu baax da nga koy wane dëgg la lu bon nañ ko nëbbu mais lu baax nañ ko wane même bu fekkee lu baax la nit ko def ngistal la mhm. loolu problème am la mhm. ku ko mënul woon def moom mën na ko def na ko remercier ko ci dëgg la mais Sénégal réew moo xam ni nit ñi daal du ñu gis lu baax lu bon rek ñuy bëgg di gis di ci wax di ci jëf mais mais mais cher cher xam nga xam bu fekkonte ni président Bougane loolu loolu rab génne na la ci bi xam nga bu doon bu doon bugaan léegi benn xaw ma nu ñu koy waxee di euh, analyste. bu doon bu doon président bugaan ci ci policier bi la njëkkee la njëkkee loolu. nga ne nga ne nga ne waaw mais ne nekkul lu bees wax nañ ko fi keroog fàttali nañ ko euh, digganteem ak sunu baay El Hadj Abdoulaye Mbaye Peex bi mu jugee RTS fàttali nañ ko. Euh, caam bi muy jël laal la nit a ko woo téléphone ne ko est-ce que xool nga xale bu jigéen biy jooy ci internet bi ñaata télé ñoo fi nekk. ki ko woo ne ko est-ce que xool nga xale biy jooy ci internet parce que dañ ko dàq kooku kilifa la ci Sénégal. télé yi bëri nañ fi borom télé yu bëri nañ fi woowu leen donc président Bougane Lo bi mu ko woowee ci saa si cherché wul à comprendre da koo jël jël càmbaas jël ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bëri na yenn yoo xam ne mi ngi ciy dugal loxoom fii di ko faj te du jëm kaw li siiw nag la nit ñi di gis donc bari na bari na loo xamante ni nii euh, nekkul lu bees bu fekkonte ni lu bees la nga ni waaw mais li ñuy wax chaque jour ku boot bu bukki xaj maw la ñaa jël na fii suñu papa El Hadj Abdoulaye la mu jóge Walfadjri mu jël ko ah jël na fi Thiamas jël na fi Lalla jël na fi ah. Abdoulaye Fam bu RFM ah ñooñu ah. ñëpp moom moo leen jël te loolu datewul tey donc je pense que li ñuy wax mooy ku boot bukki xaj mbow la mbaax nag moo mel nii il faut du ñàkk ay ñoom euh, euh, Youssou ak Alima ak Adja Jaxate ñoo xam ne duñ foog foog mu foog mu xajamal foog foog foog xajam-xajam yooyu di am munul ñàkk mais l' essentiel mooy majorité sénégalais yi dañoo rafetlu ni muy doxee ba ñu ko xamee ba léegi nii sénégalais yi tey lañ commencé gis jëmmam mais bi muy def lu baax day def lu baax nit ñi di laajte kan mooy Bougane Gueye booba feeñul télé en tout daal kuy kuy euh, kuy kuy songati na ci leneen yaa xam mhm. mais des médias nañ ko bàyyi ci ay affaire de salaire mhm. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax la de dëgg la de ñu a baax a baax mhm. chaque fin de mois ñu fay nu te lañ ñuy fay xeebuñu ko ndax ñoo ko ñaq. dëgg la te heure fu ñu ko dugal suñu borom dana ko barkeel ndax ñoo ko ñaq. waay waay waay Cheikh Covid Covid bi bi mu ñëwee. nañu nañu nañu respecté doomu aadama yi. bari na ci te di rafetal lu rafet. bàyyi de leen rafetal lu rafet. bari na ci ay Sénégal. Mhm. Sénégal ñun ñoo ko bokk. Mhm. tey jii ñun ñu ne ci rajo yi wala ñun ñu ne ci tele yi wala ñun ñu ne ñun ñu ne ci dëkk bi kenn ku ci nekk am nga possibilité dem Amérique dëkki fa. wallaay dëgg la kenn ku ci nekk am nga possibilité dem Canada. wallaay dëgg la wallaay dëgg la mais da ngaa bàyyi lépp toog sa réew di fi liggéey. Mm-hmm. doyloo sa wërsëg li fiy génn. Mm-hmm. léegi nag bu ñu doyloo li fiy génn nag ñu toog te bokk réew mi sa nawle sa nawle. Mm-hmm. sa nawle loo xam ne yaa ko waroon def sa nawle jóg def ko. lu ko. encouragé ko te bañ ko xarab. mais surtout Cheikh lu datewul tey yaa ngi comprendre. Euh, parce que parce que nañu kenn ku ñu nekk nanga nga na nga na nga na nga toogee euh, palaasu policier bi ñu raje mhm. ak keneen ak keneen ku ñu raje ndaxte kenn ku nekk fa ngay liggéey ëllëg yàlla dana la fa jëlee mhm. yàlla nag moo xam nam la fay jëlee mhm. soit da ngay tooñ ñu dàq la wala boo ki lay liggéeyloo doyal ci yow nga jóge fa waaye su boobaa bu fekkee moo la dàq dina la fay say droit waaye nit ki nga xamante ni si ci jamono bi ñu toll nga xam ne adduna dafa tëju jamono ji metti trop trop trop trop yaa ngi liggéey sax des fois mais balaa le quinze da commencé am problème. dëgg la mu sa dépense su kër sa doom feebar faju mhm. leneen ak leneen léegi kooku nga xam ne mu toll ci jamono jooju mu juum ci liggéeyam mu juum ci liggéeyam ñu dàq ko ci liggéeyam sans droit yow beneen bi ci tege mooy même su tooñee indil yërmande gi. Mhm. même su to même suñ ko tooñee indil yërmande gi nga xool diggante am am ba mu daan am di ko jox njabootam nga ne ah kii de moo tooñ dàq nañ ko. waaye de ay waay ban jaamu yàlla moo ko mën a dimbale ban jaamu yàlla euh, ban ban ban jaamu yàlla moo ko mën a dimbale ba nga xam ne bu weer dee dina mën a fay location dina may fana mën a fay ndoxam dina mën a fay courant dina mën a fay jàngi doom nga xam ne mhm. moom tey jii bu fekkee am na ay doom ay doom ñi ngi jàng mhm. léegi buñ ko rajee ay doom koy kuy fay seen jàng wallaay dëgg la lay yaakaar wallaay dëgg la est-ce nga dëgg la léegi nag kooku nag yow nga war ko jaaxleel jàqal ko naam bu fekkee moo tooñ ah. naam bu fekkee moo tooñ. Mm-hmm. ñu ne bëri yow dégg di diwkat nee na engagé na ko pour fay ko ba pare defal ko contrat boo xam ne. yi da ngay ramper pour am ko. contrat à durée indéterminée. indéterminée indéterminée defal ko contrat boobu yow saal boobu nga ne ah. waaw ah, fa dëgg yàlla police bi kat tooñ na dàq nañ ko waaye gàcce ngaalaam ki ko fataat. Mm-hmm. tey dimbali nga ko ba mu mën a dundal yaayam ba mu mën a dundal papaam ba mu mën a dundal ay doomam mën a fay ay location mën a fay tamit ñangi doomam mm-hmm. yow ngay gàcce ngaalaam lay dëgg la nanga mag sax mais mooy li rafet dëgg la ngallaawaay bu ñu toogatee ci télé mbaa rajo nañuy rafetal kàddu yi nañuy nañuy wax wax yu rafet ku def lu rafet yëkkati leen ko ca kaw ku def lu ku def lu ñaaw nga ràmbal woo ko ci suuf yedd ko mm-hmm. ku def dof nag nga weer ko mm-hmm. ndax nit ñu baax ji dañuy tuddee seen bopp ay nit ay tur man bu ma nee bay tudd taamu beneen tur man Cheikh Sarr sama tur bi bu ma nee bay taamu beneen tur danaa tuddee sama bopp waaju baax maa ma tuddee sama baay bopp waaju gore waaye du ma dem di tuddee sama bopp ab dof a ngi dégg. en tout cas daal nañu nañu may nañu may euh, nañu nañu may euh, auditeurs yi tamit. waaw ñu ñu wax seen xalaat. en tout cas daal sénégalais yi defuñu Covid bi xam nga Cheikh bari na ay entreprise privée yoo xamante ni seen i salaire day tardé. Hmm. ñoo xam ne ñu ngi jafe-jafe ñun yëguñu ko. yàllaa nga ñuy suturaal yàllaa nga ñuy suturaal te ñaan yàlla suñu borom yàllaa nga ñuy suturaal bi bi Covid bi tàmbalee mars daaw ñun groupe des médias bokk nañ ci ñi njëkk a joxe onze millions de francs CFA jox ko état bi. Mm.